tol ba bàyyi dee ci xol ba dafa gerte xaal ba te soo ko meree xol ba sa dëgg dëgg dañu bëgg dëgg duñu sëgg fonk ca sandi dëgg seen weñ ñoo ko tëgg xale yi mbégeeg bëgg dañu muus la lëg seen dund méngawul ak ca dundu tubaab roy leen ñu ne dundu góog gis tubaab seen biir néegi sëy gu raful ëpp baat ngoon ak koloré kenn du leen ci dabaat gën a géej leen soob du bëri ñu fa dabaat du bëri ñu fa dabaat bàyyi ma la mun daara bindal naa ma rock time. bàyyi ma lamin daara bindal na may téere jëndal na may yéere lu bon du ma yàlla yàlla teere bakkan du ma meere la ñuy réere yàpp ak cere bàyyi moom du weere te du daw xare bàyyi ma lamin daara bindal na may téere téere yaa nga saalum saalum ñetti nag la ñetteel ba di waañ wa All right, that was a nice video by Kirji family. But seriously, um, wagan lumade faral di wagam if you think you body eye talent. Yeah. Uh, uh, yeah. You know, Kirgi family I remember a uh, few years ago, uh, you know, they always used to call me. Then they came to the open mic, and I think over the past few years, mm -hmm. I've mm-hmm. known them for a few years. They've definitely developed and matured as right. a group. True. You know, so uh, Kirgi family, salute, man, salute. Yeah. Yeah. All right. And I love the video. So, yeah, so let's talk about the chairs. Yes. Their chairs. Yes. <laughs> I'm comfortable, like no, seriously. Okay, Ida, I'm i think you're not tripping. Ida, you're only saying that because yes, after <coughs> <coughs> because <coughs> what? Seriously, because yeah. of what? Yeah, but look, sitting next week we're doing a campaign. Yes. We were in change the chairs T-shirt. T-shirt <laughs> yeah. all the way, all the way. Yeah. make your legs go to sleep. Exactly. And <laughs> last week, Whatever, like you said, man. I had to sit like at the edge of the chair. Exactly. Looking like a little kid you in the school. Look younger though. Yeah. <laughs> like. yeah, but all right, so, yeah, man. Um, I mean, I think the show is definitely going good. Um, some of your potential, potential, read my lips, potential. Yeah. Mm -hmm favorites and winners or some like that? Seriously, um, I like Fanta Isatou a lot. Okay. Yeah, she's young. She's got a Is very... it only because she's young? No, not that, but female? she has a very unique voice. Um, if you should judge her according to her age, yeah. she has a very unique voice and a strong well, voice. Uh, speaking of age, uh, I don't think she only has that advantage. Why then there's also Musafili. Yeah, you know? yeah, Musafili Jabate. Yeah. So what about you, Sering? I already named my top three. Uh, okay, you mentioned it, but I forgot. The Panta, yeah. the little kid drummer boy, Musa. and the other singer with the two. Okay. Well, why dudes. then? Uh, you <laughs> gotta keep. you did call them <laughs> useless. No, I didn't say movement. that. <laughs> Elite movement. But then you gotta keep in mind that uh, Nyele are part of the group, so. Uh, I think I yeah. mean depending on what they bring yeah. to the table right. could determine what yes. the, the and yeah. uh, hopefully True. it's positive. Otherwise, yeah. You know, we might have you know. To. But then you also have the dancers. I don't know what you think about the dancers. And that was that was interesting because it was they were hard to judge. Yeah, you know, they really didn't do too much. Yeah. But, you know, but hey, and let's see. Um, they do bring something more today. Let's see. Yes. Let's see. All right. Um, but don't count anybody out. Uh, yeah, don't All right, I guess um, let's have a short break. Um, uh, after the short break, dinañ leen fi indil ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci Who's Got Talent bi ba tamit di leen fàttali ne um, video of the week boobu dina nekk ci suñu website bi banjulnightlife.com képp ko xam ne mu ngi seetaan mu bëgg a the whole video mën ngaa dem suñu website bi nga seetaan ko. ok um, uh, nañ seetaan Word on the Street suma jang bi Kinza moo dee génn di waxtaan ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Gambie bi nañ seet lan la nit ñi am pour wax we'll be right back. asalaamaaleykum yéen bi nga xam ne yéen a ngi seetaan maa ngi kontaan nag nekkal leen seen beneen segment word of the street ah, maa ngi tudd ak Kings of Queens nag maa leen fi nekkal saa su nekk rek te tey nag maa ngi leen fi nekkal fii si coopérative comme ni ngeen ko gisee te laajte biñ leen amal mooy ban Gambien ngeen xam ku gën a siiw ak lu tax nga foog ne dafa siiw lii lañ leen amal tey nag acaleen ñu dem déglu nit ñi lan lañ ñu amal Uh, the Gambian who is more famous. Our president is the most famous, most famous one in the Gambia here. Nancy Nancy ndaxte woyam ñëpp bëgg nañ ko si Gambie. that is uh, ENC. Uh, Jalex. xanaa Yaya Jammeh xanaa suñ président bi man ji. Yaya Jammeh eh, eh, man soose laa gën a dégg ba ma la ko soose. ah man dinaa wax ji. Gambien bu ma foog ne moo gën a fee mooy président Jammeh. Mariama Jaliba Kuyata yow Gambia ki ngeen gën a suul daal mooy suñ président bi. kan man Nancy Nancy. nii xanaa good président bul am nii. man bari bu ko moo gën a siiw président man maa ci jiw monsieur le président xanaa alaji isa Jawara de man ji te xam naa ne nekk di def xam nga dafa liggéey ba musique bi dafa jamme nit ko baax la because kooku lu mu doy def baax na si lool prof Gambia bi si wax gaa ne suñu gaa bu bu dafa parce que président nekk nekk na fenda wol bi. wala wala because bon exemple because of the peace yi parce que dafa mun lu def xam lu def waaw that is basically talent bu nekk and the way he performs I feel that that is what contributes to his fairness to the music industry anyway. daal Gambien bu ma foog ne moo a siiw moo nekk Basirou Jawara because kooku noonu ñooñu dañ liggéeyal Gambia trop. he